maa lépp loo xam ne lil bahaaliili ñaaloon na sang yu màgg ya al bahaaliil jamhu buxloolin la al buxloolu mooy al sayidu al azimu al jaamiu li kulli xayrin loolu mooy al buxlool dañu fi di ba tey ab daxaak ab reexaakoon dane sëñ bi bitteem lépp mucc ak jàmm la biiram lépp barke la muy nëppal jëpp waa ju baax maanaam moo nekk ci kaw jëpp waa ju baax ni nga xam ne moom la mbaxanam nëpp di féetee ci kaw bopp ay mayam bari lool ay ngëneelam mel ne géej ay darajaam féete kaw mboolem waroom daraja yi ab daa feeñal na alxajaayiba kiimtaan ya kullan mboole seen wala xaraayiba ak way tumuranke ya min rabbin tukkee ci ab buur badihin bi aji fent mbindeef xabaax ko may na ko kulla ma amawlin lépp lu ñu yaakaar jalaa wuññ na almixaala wor boo ko defee almuxaala muy ak neen nag boo def jalaa wuññ na almuxaala ak neen wa af naa te mu jeexal almaxla bekkoor ba fab te darat te njëkkante ilahi jëm ci moom tullaabu tanwiirin way sàkku ak leeral wa tanwiirin aku may sëñ bi moo wone xeeti kiimtaan yi te yàllaa ko may mu wone xeeti kiimtaan yooyu ndax yàllaa ko may lépp lu ñuy mébét ak yaakaar sëñ bi dàq na lépp luy caaxaan dàqe fi bekkoor faw moo tax ku bëgg leer fax jëm si ci moom ku bëgg ak may bëgg a tàggoog bekkoor it fax jëm si ci moom fuwa moom alxadiimu mooy liggéeykatu yonante ba ëllësi ba nga xam ne boo ko bàyyee ñi mu ko bindee yuxusa def na xejjale xidmatihi ci liggéeyam ba kullul masaabihi kon lay soppiku mboolem làmp ya nuuran ci ak leer wal xanaadili ak làmp ya ba tey day nuru nag huwa alxadiimu ëllësi yuxusi dana gàcceel bi xidmatihi ci liggéeyam ba kullul masaabihi mboolem làmp ya nuuran ci ak leer wal xanaadili ak làmp ya ba tey nee na mooy ki nga xam ne liggéey bi muy liggéey yonante bi dafa fees dell ak leer ba gàcceel mboolem làmp yeeg yi am leer yépp ndax leeram gu am doole foo moom alxadiim mooy liggéeykat ba ëllësi ba nga xam ne ah yaa dundale na te xidmat yi ci ab liggéeyam diina nabi diina yonante bi alkarimi bi aji tedd al mustafa kadi kuñ tànn al ili kay kilifa mooy ki nga xam ne mooy liggéey yonante bi nga xam ne liggéeyam bi ci la dundalaate diina yonante bi mu def fii nag xoo moom alxadiimu mooy liggéeykat ba ëllësi ba nga xam ne yuxusa def na xejjale bi xidmatihi ci liggéeyam ba diinu nabi diina yonante bi alkarimi almustafa al ili salla yal na dooli tedd nga alayhi ci moom wa arba te yal na gërëmloo cheikhana sunu sëriñ karaman ngir mbaax ak tedd nga rabbun buur tanasaha bopp sell na xan fikrin walis xalaat wa ma qawlin akum xel yàlla mi nga xam ne sore naag xel ak xalaat ndax xel ak xalaat moo ko sàkk defal ko mbindeef yàlla moomu yàlla na saxoo dolli yonent bi teraanga saxoo dolli sëriñ bi ngërëm ci mbaaxam ak ngëneelam huwa moom alwaxiidu mooy aji wéet ja mooy kenn ka alfariidu kay aji wéet al murtada ka di kuñ gërëm al sanadu kay wéerukaay ba al xutubu kay xutubu ba al sharif bay aji tedd al zarifu bay aji ñaw al waahib suuli kay aji maye paju aajo al faidul juudi kay aji bopp ci tab maanaam kay aji baawaan ci tab faxrul akramina kay ndamal ña gën a tedd maxan boole seen yaa faatihan yow aji ubbi kulla baabil xayri lépp luy buntu yiw maqfoolin bu ñu tëj nee na sëñ bi kenn la ku yàlla gërëm muy xutubu di wéerukaay di ko tedd kuy maye pajuk aajo tabe lool ba tab gi di baawaan kon dafa mel ne yaa faatixan dafay tàmbalee woote ci mujj way wi yow mi nga xam ne yaa ubbi bépp bunt buñ tëjoon aya lotal na midaadi sama daa maxal aqlaami ànd ak xalima ya ma doxukumoo seenu tagg wa mantiqi ak sama làmmiñ yaa munaa qalbi yow mébéti sama xol wa masooli tey kamay laaj say mbir ne ko sëñ bi bëgg naa laa tagg waaye tagg la dëgg-dëgg mënuma ko su ma boolee samay daa ak samay xalima ak sama làmmiñ yépp du tax ma mën laa tagg na nga yelloo ko na la taggee iftax yal na nga ubbi lanaa ñelnu wax bu naa te yal na nga nu may maa la nga xam ne na mulu dana nu ko yaakaar min ko ci yow min xëyrin ci aw yiw walub sin akuk col wa mashrubin ak lu ñuy naan wa makoolin ak lu ñuy lekk liyeex yaa ngir na dund kulu naa képp ci nun bi ko ci yow fi daari ni ci yaari kër yi siran ci lu nëbb way jaxaran ak ci lu biir innaka naka yow bu fadlin borom gëneel nga wa tafdilin tey boroomu gënal sëñ bi ubbil nu bunti yiw may nu lépp luñ yaakaar ci yow muy xéewalu zahir niki lu ñu sol mbaa lu ñu naan mbaa lu ñu lekk ak xéewalu baatin mi wépp yiw defal loolu ba mujj suñ lépp dundee ci yow ci biir ak ci bitti ndax yow da ngay boroom ngëneel te mën a maye ngëneel xajjil yal na nga gaawe xoroo jiyee sama génn min suu in ci lépp lu bon wa man xasatin ak wàññiku wam nun yal na nga xeewe xale ci man bi intaaxin ci ak goreel wa taw silin akuk jokkale akuk àggale sëñ bi daal may may ma génn ci lépp lu baaxut ak lépp lu di ak manki dal may xéewale ak goreel akuk àggale ca borom ba wa fayd yum nin ak bëbbuk barke wala baawaanuk barke xazimin buy aji rëy xayri mun xatihin bopp du aji dog wa nay li am nin ak am kóolute wa ishaadin akuk texeel wa takk miilin akuk matal sëñ bi dal may xéewale barke bu rëy rëy bu amul fu mu yem boole ci mucc akuk texeel akuk matal yaa cheikh yow sëriñ bi xat xulixa bindeef na al insaanu nit min xajalin ci yàkkamti wa akramu naas yi te ka gën a tedd ci nit ñi man mooy ka nga xam ne yonte yi dana joxe bi taax jilin ànd akuk gaawe sëñ bi lii may ñaan kat dama ko bëgg am fi saasay saasa ndax nit yàllaa ko binde yàkkamti te ka gën a baax ci ñu tedd ñi ka gën a tabe ci ñu tabe ñi mooy kay maye fa saasay saasa bañ koo waajal a ko yeexe fadat ka jotoona la nafsiya sa bakkan mi nadd bin ngay aji baax xalin kuy aji kawe wasarin ku di ab wéerukaay majj boolin ku di kuñ jàng mu ne ku di kuñ binde bil xusni cib taar xàqan ci dëgg-dëgg wa bil ihsaani ak ci rafetal laa zaala yàlla bu dañ raayaatu nasrin drapoy ngañaay min ka lu tëkkee ci yow xaafi xatan di aji raf-rafi waraw du mbatxika te dërub sa tagg yàlla bu mu dañ da ëban ci lu sax xayra mattuloorin di ngën ji lu ñu mësëyal maanaam fu naat fu ñu tawal ba mu tawe mattulool mooy fu ñu tawal taw ñu wax ak tallu mësëy te ne sëñ bi maa ngi lay jotee saa bopp lu la nar a dal na ma dal te bàyyi la fi yow da ngay waaj bu baax ku kawe kuy wéerukaayu ñëpp yàlla binde la taaru biir ak biti ak sax ci def lu baax biir ak biti drapeau yi ngañaay yi nga xam ne yàlla la ko takkal yàlla na ko yàlla gën di dolli muy gën di raf-raf yi ñëpp di ko seen yàlla na lu yàlla may nu lay tagg tagg woo xam ne fu mu toll day gën di naat rek gën di tooy walahu aydan azka salaamin gën jaa selli ab nuyoo min ibrahima bu tukkee ci ibrahim Diop marasoomin bu di buñ bind mawsoomin bu di buñ màndargaale bi kullimaa ci lépp loo xam ne sarra bégloo na ahlal xayri ñooñ yiw ilaa xadimin jëm na ci ab liggéeykat xadimin misli kuy aji ñàkk am kem muxtamadin ku di kuñ sukkandikoo barrin kuy aji baax karimin ku di aji tedd maaloomin ku di kuñ xam la dal axyaari fa tànneef ya nee na nuyoo boo xam ne ku ñuy wax Ibrahima Diop moo koy nuyoo te mu nuyoo boo xam ne lépp luy bëgloo ñu baax ñi da koy làmboo nuyoo mel noonu laay jëmale ci sëñ bi nga xam ne day liggéeykatu yonante bi te ñàkk moroom lool di wéerukaay di sukkandikukaayu ñëpp di ku baax ku ñu gaayu baax yëpp xam huwa moom alxadimu mooy liggéeykat ba ëllësi ba nga xam ne yudduxaa def na ko wooye bi ahmada ci ahmad man ka nga xamee ni huwa moom alxidam mooy xaayaan ba ëllësi ba nga xam ne azra xeebloona bi marhoomin ci ab taw wala ci béréb bu ñu tawal ba mu naat ar rihmatu ñu fi doon bëndeen ci gannaaw dañ koy jam xóoriham bu ñu nee marhoom nag makaanun marhoomun mooy makaanun musaabun bi rihmati ñene sëñ mooy léegi yëkkati yonante bi nga xamee ne dañ koy tuddee ahmadu yonante bi di turandoom muy ku tabee tabe koo xam ne mu gën a tabe ab taw ak géej ak leneen aljaamihul fadli kay aji boole lépp nga neel mawal awliyaa yi tey fatukaayu wàllu yi maxan boole seen xaysul kiraami tey tawub booy tedd ña al ulaa ña nga xam ne xussoo jagleleefoon na leen bi taqdimin ci ak jiital leen mboolem wàllu yi ci moom la ñuy làqutu mooy tawub gaa yu baax yi gaa yu baax ya nga xam ne yàlla leen fonk ba jiital leen sëñ bi mooy seen taw moo leen di sottil mbaax ak ngëneel man mooy ka nga xam ne axarasat luuxal na alsuna lus ni làmmeñ yi way rafet ña làmmeñ al ula ña nga xam ne madaxoo tagg nañu luuxal na leen aw saafu xuliyaahu meloy kaweem ga min baadin ci aji feeñ wa makkatoo min ak lu ñu nabbu mooy ki nga xamee ne ña rafet làmmeñ lool bañ leen di yéem buñ ko doon jéem a tagg it meloom yi moom dañ cey tëlee tëlee ci wax ko ba mel ne dañoo luur ba mel ni mënuñoo wax maanaam daal ñu dàq tagg dëgg dëgg buñ dee tagg sëñ bi tagg ko daa jafe ba dañu mel ne mënuñoo tagg benn yoon day mel dañoo luu mënuñoo wax mënuñoo bind fa lay sa yudriku du jot mus ñun aji tagg mopp ni buñ koy aji xaabaabal abaran mukk xosoral madihi asakay tagg wa wala àddinaa du caageenu lu ko gën a néew bi marqoo min ci lu ñu bind wala bi marqoo min ci aw kayit nee na kii tagg sëriñ bi tey xaabaabal ba defee ne jotal naa jotal fekk na agul sax ci asakay tagg wa yàlla ca moom sarrix na nga xappati mooy na nga wóoral bi tafdilihi ci ak gënalam xalal xudaati ci kaw way jub ña waxul te nga wax maash ita lu la soob fii ci moom wa abutil ta nga neenal shirxata roomi yoonu waa room yi muy tubaab yi foo wax ne sëñ bi gën gi ko yàlla gënal ci kaw ñu baax ñëpp say boo di ko wax ci kaw di ko xappati jërta làq-làqal loolu neex ci lu baax rek mën nga koo wax ci moom ku jiyoo moom aw yoon nag rawante na waa room yeeg ñamel na ñoom ñooñu ñoo nekkul ci dara ñooñu nekk ci ñooña seen yoon wa yoonu caaxaan rek la foo toll del wax yoonam bi ni mu dëggoo ak yoonu ñooñeeg ñu mel ne ñoom na mu jàdde ak na mu ñàkkee njëriñ wan sub askanal ila zaati yi jëm ci jëmmam ji ma xadri yi ànd ak darajaam abadan faaw machitul la soob min sharafin ci tedd nga xaalin luy aji kawe wa ta'zimin akuk màggal jëmmi sëñ bi ak darajaam loo ci mën a wax rek ci ak tedd akuk màggal ko yàlla màggal rek say boo nga wax ko te askan ko jëme ko ci jëmmum joojoog darajaam ji ndax fa ko yàlla fa ko yàlla àggale ci tedd nga ak màgg ak kawe mën laa wax wax ba àgg ca huwa moom almalaadu mooy wéerukaay ba ëllës yi ba nga xam ne manis tajaara ku làqatu bi ci moom najaamu mucc bi xëy ni xanaa ci lu coona duuna tawxiid min ci lu dul ak defeloo mooy wéerukaay bi nga xamee ne ku làqu ci moom rek mucc nga te doo ànd ak benn coona te loolu du lu ñuy demale ko fekkale wa man yarum ku sàkku min na daahu ca mayam nga aljam mi ngay aji bari matlabatan càkkuteef yafus mu tuufu bi faydin ci ak bëbbu wala ci baabaanu may azimin guy aji rëy doona taqwimin ci lu xayma doona taqwim ci ak xayma nee na mayam gi daa bare bare ba nga xam ne loo ci sàkku dal koy am da ngay am sax may gu réy réy goo xam ne kenn du mën a xayma nam toll haza jàppal lii wa moo jibuhoo te aji waral nuyoo ba min nii tukkee ci man ileeka jëm ci yow ayaa xayra xadimin yow ngeen ji ab liggéeykat xat arda boobu gërëm loona xayra maxdoomin ngeen ji ku ñuy liggéeyal li waral nuyoo bi an ta'lamoo mooy ngeen xam ne annama naka la nga xam ne xad kuntu nekkoon naa atlubuhoo di ko sàkku min mawdihin ci ab béréb yóbbu naa boobu def na tabax fii ci moom daaru takrimin kërug teral wayul faate day fekk fii ci moom almuna mébét ya kullan mboolem mébét ya bilaa kadarin ci lu nax nax wajattuhu am naa ko hinda matwa mamma kaltoomi fa saxukaayu mamma kaltoom te waxoo moom mamma kaltoom moomu muridun ab taalibi la sadoqun bu di ab dëggalaakoon xadd yuhibbukumu bopp baraana mu sopp leen xadd xaala wax na zaaka loolee wa ab daate mu feeñal ba'da maktoomin leen ni lu ñu nëbbu lii saa ngir lii wa zaaka ak loolee arsaltu yebal naa axi sama mbokk abdul karimi abdul karim lakum mu jëm si ci yéen taaliba ta iidin mbirum mooy aji sàkku ak dëgëral wa taslimin akuk musal dane ko nuyoo li ko waral mooy xamal la ne la laa doon géejoo di ko ñaan bëgg koo am muy béréb boo xam naa faa sanc def fa kër gu baax lu ma bëgg rek mu fekk ma fa am naa ko fa ku ñuy wax mamma kaltoom moo ma ko jox mamma kaltoom nee na ab taalibe la boo xam ne bu dëggu la bu la sopp lool yow sëriñ bi wax na ko te feeñal na lenn ci luy dëggal li mu wax bi nga xamee nag dem naa fi moom may ma béréb mel noonu nag moo tax ma yebal sama mbokk mi di Abdul Karim di la yëgal ne am naa loolee di dollee sàkku nga ñaanal ma kàttan ak musal yàlla kàttanal ma musal ma fa ku nekkal mu ay nii di aji dimbali sama ala raxmil xasoodi ci kaw toroxtel añaankat ba ànd ak toroxtel añaankat ba bi maa ci lépp loo xam ne faax a kawe na addunoona njortu ya min asraarin ci ay secret watanaa yi min aku xéewle suñ bi dolli ma dimbale ba may ma may lu kawe saa njort ci xeeti secret ak xeeti xéewal samam noonu nag gën di kecci gën di amu naqar rek ridwaanu rabbi ngërëmal saa boroom aleykum yàlla na doolee nekk ci yéen kulla asminatin ci yépp jamono yaa xayra kulli imaamin yow ngën ji bépp ilimaan fu ma ma amoomin topp bépp maamoom yow mi gën képp kuy ilimaan gën képp kuy maamoom maa ngi ñaan yàlla dolli la ngërëmam fu mu tolloo wa kulli asxaabi ak mboolem sa saxaaba yi al ula ña nga xam ne al ula boobu du am waaw mawsul rek la waaw gi day deñ xafaw ka topp nañ la bila richine ci lul ak wor maanaam ci lul ceerax dara wa mabdoo yi te la may tàmbalee wa maxtoom yi ak la may mottalee lépp bilhamdi nekk na ci cant ga te ko ñaanal yàlla doole ko gërëm doole gërëm mboolem ñi ànd ak moom te dëggu amuñu dara lu ñu rax ca ànd bu rafet ba mu ne ko nag li ma tàmbalee woon muy sant moom laay daaneele itam muy sant rek walahu aydan li cheikh yi ñeel na sëriñ ba ahmada ahmad alwali kay waliyu fadlul nga neel loo xam ne kullu waliyin bépp waliyu faasa texee na bii ca moom wa kullu mu'talin te yépp aji kawe sama yëkkatikoo na bi jaahi darajaam ja alaali jay aji yëkkatiko nee na sëñ bi yàllaa ko defal ngëneel loo xam ne mboolem wali yi ci moom lañ jaare ba am la ñu am képp ku am daraja ju kawe itam ci daraje sëñ bi rek nga yéege ba àgg fa nga àgg waxoo moom imaamul awliya mooy njiital wali yi waxoo moom raisul asfiya mooy kilifa tànneef ya wa waarisun te mooy aji doon lil ambiya ñeel ñañu solo wala atkiyaay ak way ragal ña al qudama ña di way jiitu ne mooy ilimaani wali yi mooy njiital tànneef yi moo doon yonante yi moo doon ñu baax ñu fi jiitu woon tey ñu ragal yàlla ba daa feeñ na lëxoo ñeel ko maa lépp loo xam ne xadd xafaa nëbb woon na jadd da yeesal na rasmama màndargam la nga xam ne xafaa ràppoon na min xëjj taaxaa ci yoonu taaxaa al Mustafa ka ñu tànn sàllaa yàlla na dool tedd nga àllahi ci moom duus sama borom asamaan nee na lépp lu làqu woon yàllaa ko ko woon ba mu gis ko lépp lu ràppoon naqaree xam ci yoon yonante bi moom moo ko yeesal wane ko ba mu neex a xam ku ci bëgg aw aw ci àllamahoo xamal na ko rabbul wara borom mbindeef yi bilaa taxal lumin ci lu dul ak xamlu yuraagum def na ko gis fa faaxate mu kawe ku la mën képp koo xam ne xaraa jàng na xinda jamil xolama fa mboole way xam ñi sëñ bi li mu xam du lu ñuy jàng ci téere lu soob yàlla la mu xamal ko ko loolu moo tax loolu moo tax mu féete kaw képp koo xam ne weesoo rek jàng ci téere yi ak jàng ci borom xam-xam yi waxoo moom imaamu naa mooy sunu ilimaan alxavi yi mu koy aji màgg waxoo moom balaa du naa mooy sunu wéerukaay alkër yi mu koy aji tedd bi it ni rabbi naa ci nammeelu sunu borom wala ci ndigalul sunu borom alxadiim yi koy aji jiitu muulil baraaya kay aji jox mbindeef yi ne aman ay xéewal sëñ bi ne yàlla nu ko defal muy sunu ilimaan di sunu royteef di sunu wéeruwaay loolu lépp yàlla nu ko defal ci mbaaxam waxoo moom xalifatur rasuli mooy xalifab yonante ba xabibu rabbihi te mooy soppe boromam ba aljal yi li koy aji màgg shifaahu xabdihi te mooy saafaras jaamam bi alxalili bi aji ràgg muniruma te mooy aji leeral lépp loo xam ne xadd abdulama lëndamoon na sëñ ji moo wutu yonante bi ci biir ak bitti di soppe bi yàlla ci biir ak bitti mooy saaf bépp jaam bu amee jàngoro ju koy tee ma nekk boroom mel ne man mi wax xasida yi ba tey lépp lëndamoon moo ko leeral la shakk amul benn sikk sàkk ànd na zuux daxoo naka dëddoom ga waa ilmahoo ak xam-xamam ba wajju daxoo ak tabam ga wa qurbaxoo ak jegeem nga wa bon daxoo ak soreem nga lu ci nekk an yaa lottal na xoqoolal fuhama xeli way am na dégg nee na yëmu biraate benn benn bu ci ne an yaa da cay dellu dëddu gi nga xam ne moom la dëddu lépp lu dul yàlla ak xam-xam bi ko yàlla xamal ak tabe gim tabe ak jege gim jege yàlla ak lépp lu yàlla bëgg ko jege ak sori gam sori lépp lu yàlla bëgg ko sori yii leen lu ci nekk àgg na ci foo xam ne lottal na xel yi ñuy xalaat ak jéem a am dégg falaa taqis bul xiyaas bul natt bi ci moom ahadan kenn obxi na obxi na nga sàkkoo bi ci dara jaam way das sama di ngërëmal yàlla ki jubli ci aajo tekkun kon nga nekk bi ci dara jaam bilaa fanad njurul fen ka sax bi taaxa di mel ne saxaaba yi taaxa almotama ka def ñu tànn sëñ bi ne bul ko natt ci kenn bul ko tëkkale kenn sëñ bi ne bul ko tëkkale kenn te boo bëggee ngërëmul yàlla jaare ko ci moom boo ko jaaree ci moom te dëggu la saxaaba yi amoon ci yonant bi danga ko am mel ne saxaaba ya ci baaxu sëriñ bi law laa maqaalun bul ko nag wax sabaqa bopp jiitu na min dil bu jóodi bàyyi ko ci boroom am nga wala baqa ak des ga maaxaabaxoo du ko sikkal ndax lu choqa ñooñ texee di wala ramaaxu di du ko sànni man ka nga xam ne rama sànni na sëñ bi neen ni mu selleeg ni mu baaxee bul ko nag lu yàlla dogal naka jekk kon kenn du ko noonu kenn du ko sikkal kenn du ko jéema teg dara lu ñaaw waaye nag yàlla moo doxale noonu àdduna moo bindoon naka jekk dana am ñu ko noonu ci zahir di ko loroka teg lu nekk foofu moom alwaliyu mooy waliyu wa dul adabi kay boroom teggiin wal xasu te mooy xettal wa xaqan ci dëgg-dëgg laariye ba amul yenn xeeti sikki sàkka wal xaalibu te mooy aji not ja allasi ja nga xam ne xalaba not na bushra yéem naa mbékk la naa ñeel zaala dañ na alxamaa ngumba xol ga mooy wàllu yu nga xamee ne dafa teggiinu teggiin yee yàlla digganteem ak boroomam ba yàlla gërëm ko muy xettal woo xam ne kenn nattawliwu ko yàlla may ko mu daaneel ay noonam daaneel lépp kon nag ñun ñi nga xamee ne tax na suñ xol di gis amatul ngumba xol tax na suñ xol leer bay gis mun daal am na mbégte moo xam ne mënees ko natt xadd faasa texe na man ka nga xam ne ianta sama jàppandu na bi ci moom wan tasama te mu nosu bi nizaami yi ci nosam bi falaa yaxaafu du ragal man koo xam ne zalama tooñ na wan taqama te muy fayantoo minal waraa ci mbindeef yi ku jàppandu ci sëriñ bi nosu ci nosam bi daal say boos xel dal jërëtul ngay ragal kenn kuy jóg di tooñee ka tooñar bee fa man képp koo xam ne xajik te daa roy na bihi ci moom yàqu duhoo dana ko womat ilal fa daa jëm ci jub ga wa kafaxoo te mu fekk ko ànd rada walis alkande bi idin rabbin ci nammeelug ab buur wala ci ndigalul ab buur xadduma bopp jiitu na ku roy ci moom te yàlla tax rek moo lay womat teg la ci ak njub dox sa digganteeg lépp luy indi alkande ci coobare yàlla wa wasfu ma melal la nga xam ne xasama sedd na ko lëxoo ñeel ko minal masaaya ci ay ngëneel dul xidami borom jiitu ga ah yaa lottal na almidaada daaja wal xalama ak xalima ga wa nutqa naatiqin ak tudd aji tudd sama juj yëkkatiku na li ko yàlla sedd ci ay ngëneel daal ku yore daa ak xalima di bind itam mën laa fexe fexe ba bind ko ku yor làmmiñ di wax it mën laa fexe ba wax ko lépp baxarun géej la li man ñeel koo xam ne yebbu xi dana sàkku ànd na daa tab nuurun leer la li taalibin ñel aji sàkku xudan jub boo ko laafee muy li taalibi xudan ñel aji sàkku jub lay sun gaynde la li jublatin xidaa ñel mboolem noon ya xamaahu aar na ko xayru man ngën ci koo xam ne xamaa aar na nee na ku bëgg ak may ñëwal sëñ bi géej la du jeex ku bëgg a jub bëgg leer gu la gindi ñëwal sëñ bi leer la kuy noonu bu yàlla nag moom nay daw a daw te xam ne sëñ bi gaynde la gu koy fàdd si te yàllaa ko aar nag ba dara mënalu ko dara baxarul buxoori mooy géeju géej ya ak taamiyaati ya di way yëkkatiku am ndox sadru sudóori mooy njiitul njiit ya assaamiyaati ya di way yëkkatiku badrul budóori mooy weeru weer ya alkaamilaati ya di way mat sam si sumoo si mooy jantub jant ya faax la mën na nga xam ne mooy géeju géej yi mooy njiitul njiit ya mooy weeru weer ya mooy jantub jant ya xabaahu may na ko jumlatal watari mboolem aajo rabbul xibaadi boroom jaam ñi dul xadari kay boroom dogal ba wa zaadahu te mu dolli ko fadlan ngëneel zahara lool feeñ na xataa axaata ba mu xettali al umama xeet ya yàllaa ko may lépp luy aajo dolli ko ngëneel loo xam ne ñépp ko gis ca la jaare nag moom sëñ bi ba xettali mboole mbooloo yi ak xeet yi yaa rabbana yow sunu boroom bi xaq yi ci àqam wa fadlihi ak ngëneelam wa sabqihi akuk jiitoom wa shawqihi akuk soppam wa dawqihi akuk mosam wa ma ak la nga xam ne badaa feeñ na waxtatama te mu nëbbu bi xubbihi ca soppam nga muhammadan muhammad xeerlu waraa bi ngeen ji mbindeef yi wa ahmada tey ahmad man ka nga xamee ne mislu foo moroomam lañ yu jada def ko fekk fil aradina ci suuf yi wa sama ak asamaan salla yàlla na dool tedd nga àllehi ci moom ku laxin ci bépp waxtu rabbi sama boroom al muhinu kay aji dimbale musalliman mbir mi aji dolli ko wóolu wa alihi ak ñoñam zawil yaqini ña di waroom ak wóolu wa sahbi ak saxaaba ya ma man ànd képp koo xam ne aslama tuub na suñ boroom ci àqi sëriñ bi ci ngëneelam ak raw gi mu raw ak sopp gi mu sopp yàlla yonante beeg lépp luñ sopp ak mos ga mu mos yàlla ak lépp lu yàlla bëgg mos ko mu neex te bàyyiwut mu ko mukk ak li nga ko may ci lu feeñ lu nëbbu ak ci sopp gi mu sopp yonante bi maa ngi lay ñaan xajjil yàlla na nga gaawe ilaahi yow sama buur bi farajan wuññiku njàqare la naa ñeel na wa xaq te nga dëggal arraja yaakaar ja la naa ñeel nu wax sif te nga wuññu xanaa walis nu du jaa kulil xataaya lëndëm bi mboolem ñaawteef ya karaman ngir tedd nga ci àqam ak yeema ci teg daal sunu boroom daal nuy gaawe nun ñëpp may nu teggi tiis àggaleel nu sunuy yaakaar lépp sotti tasaareel nu sorilal nu ñaawteef yeeg lëndëmee ñu ëmb wax fir yàlla na nga jéggal dunu banaa sunuy bakkaar jamihan boole seen wala xay ba sikk sa fastur yàlla na nga ko suturaal yaa samihu yow aji dégg ji fekkee jàngaale woo faaga nag ba ko boole waaw gi nga ne kon wastur te yàlla na nga suturaal alxay ba yaa samiha waq bi yàlla na nga fay ak du yoon a bor ya yaa sarihu yow aji gaaw ji wakkunta nga nekk mu karriman di aji teral naa ñeel yàlla ci dara